aussi vos collègues vice-présidents de séance. Je salue aussi le secrétaire général de l'Assemblée et toute son administration. Chers collègues, je vous salue. Madame le ministre, bonjour. Euh, je salue déjà euh, l'engagement et la reconduction, la confiance que le président a placée en vous, parce que vraiment vous l'avez mérité et je crois qu'en tout cas c'est la satisfaction de toutes les femmes et toute famille. Je salue aussi tous vos collaborateurs. Je commence par vos directions, entre les mains de ma grande sœur, euh, Madame Diop Ayoba, du PADES. Donc je salue toutes vos directions. Je salue aussi votre cabinet, vos collaborateurs, Nyanya quand même qui est très disponible auprès de vous, et votre directeur, Monsieur Lo, et mon chéri aussi, euh, Mohamed. En tout cas, tous vos collaborateurs en leur rendant grades et qualités et tout protocole respecté.

dafa nag am ñoo xam ne ministère yu fi jaar te yow sa ministère dafa nekk foo xam ne ne ministère bu nekk nag war na ci am cër ci wàllu li nga xam ne nekk dañu ne chaine de valeur yi surtout mu am li nga xam ne ne industrie bu ñu ko waxee tey boo jëlee anacarde boo jëlee gerte gi boo jëlee agro écologie bi ñuy wax tey dafa am ay loo xam ne dañ ko war a teg mooy maanaam dimbali jigéen ñi parce que chaîne de valeur yi lu ci gën a bari gis ne góor ñi duñ fa nekk mais jigéen ñi ñoo fay ne donc ñu war a mën a def ay industrie yu ndaw yoo xam ne dina gunge xale yi jigéen ñi pour ñu war si mën a jàpp tey bu ñuy wax ci loolu yépp dañuy toll si sécurité alimentaire si sur nutrition bi nga xam ne ñu ngi koy wax te président mu yitteel ko pour que ñu war a mën a gunge jigéen ñi si foofu waaye tamit booy jël tey ci domaine hydrocarbure am na lu ñu fi génnee ñu tudd contenu local contenu local boobu tey dañ ko war a matérialiser te xam nañ ne que tamit si foofu day wàcc ba ci suuf ci gox goxaat yi te ñu gën a néew doole gën nañ leen ñu jàppale leen si muy jigéen ñi aussi donc foofu il faudrait que ci vulgarisation continue locale ñu santi sur ce ministère mu war ci dugal loxoom lu bari nit ñi wax nañ fi tamit li jëm ci wàllu crédit keroog dañoo topp ci ministère des finances pour wax ko ne que mbirum crédit bi nañ ci jàpp waaye tamit crédit bi pexe maanaam gouvernement bi di def def ko ci fu ne mu am crédit il faut faudrait que ku ñu jox crédit ñu fay ko dama ne ministère bi dafay mobiliser ay milliards ñu joxe ko lu ci gën a bari jigéen ñi la ndax góor yi ñu ngi fiy jooytu parce que jotuñu lu bari waaye nag bu ñu mobiliser crédit bi ñëw def leen pexe ngeen delloo ko gunge ministère bi du fonds politique jëluñu ko pour ne doo leen ko fay ku ñu jox crédit da ngay fay pour que suba mu mun ko jël ñu tuddee ko crédit revolving loolu moom il faudrait que ñun ñëpp ñu jàppale ministère yi nga xam ne ne dañuy joxe financement pour que ñu mën a mën a ñoŋal loolu nga xam ne ne moom lay mooy moom lay xeex ku nekk bëgg nga financement waaye financement bu ñu la ko joxee fayal pour que suba ñu mun jox sa moroom sa moroom jël liggéey tegaat loolu tamit nekk na loo xam ne nekk lu ñu licc yi yitteel la leneen li nga xam ne ne yitteel nañu ma le ministre def nañu plaidoirie yi démb moom wax naa ko ministre de la justice waaye tamit fi nga xam ne ne ko yow yaa ko mbubboo muy famille ak genre violence yi ñuy teg jigéen ñi bari na loolu moom duma ci dellu si lu ñuy wax man damay wax ci léegi gis nga may jubbanti ne avortement médicalisé ci kaawu viol ki nga xam ne dañ ko sàkku ak ci kaawu inceste mooy ku sa pàpp wala sa nijaay wala sa frère tëddee te loolu moo warul dañu ne waxuñu kenn ñun ñëpp dañuy julli te defe naa ne que tey bu ñu nekkee fii si dëkk bi nga xam ne ne muy Sénégal te julli ci ëpp fi gis nañu lu bari loo xam ne ne gaañ-gaañ yu jóge ci secteur boobu julli yi nag nañu war a jóg wax ak pàpp yi wax ak nijaay yi wax ak frère yi ñi nga xam ne ne dañuy sàkku lan la si religion bi wax curé yeeg ñeneen ak ñeneen nañ si wax bu ñu nekk di ko nëpp nëppal ñu ngi gaañ te bu ñuy wax famille di wax genre si biir foofu parce que wax nga ko sa biir document dañu nekk di jàppale ñoo ñëpp pour war a mën a nëbb leen pour violence yooyu ñu wàññee ko si ñoom donc loolu daal madame la ministre dinañ ko xeex topp ci parce que am na task force bu ñu teg pour que ñu war a mën a waxuñu tegaat fii benn loi dañu ne ñu jubbanti loi parce que suñu dëkk dafa signé ay këyit yoo xam ne ne ci yeneen dëkk pour nangu loolu te sans réserve la ko def leneen li muy wax muy décret si santé de la reproduction ñu ngi ko voté depuis 2005 ba tey jii décret bi génnul madame la ministre jublu si pour mu ñëw code de l'enfant ay wax waxaat la madame le ministre daaw da nga ne woon code bi pare na mu nga woon ca ca conseil des ministres wax nañ ko secrétaire général dina ko indi ba léegi ñu ngi xaar bu dañuy dem ci yenn daje ñu naan ñu yéen ba léegi seen code de l'enfant jëwul te dëkk yi ñu jege nii ay gineeg ñi ñëpp dem nañu liggéey ko donc nag ñu la ko tegaat sa loxo madame le ministre je vous remercie et mes encouragements